Monsieur Mayoro Faye, qui va la parole au nom Parti démocratique sénégalais, bi nga xam ni dafa ñëw yokk doole coalition Diomaye Président. dama bëgg rek comme que deux minutes la ñu am ngeen may ma ma jottali leen le message du président Karim Meïssa Wade ak le message du président délégation bu mag par des membres de la

À ce propos, Karim Meïssa exprime sa profonde satisfaction rek comme que deux minutes la am ngeen may ma ma jottali leen le message du président Karim Meïssa les autres préoccupations. Soyons conscients que ces principes fondamentaux, piliers de toute démocratie vivante, sont aujourd'hui gravement menacés. Sans eux, chaque citoyen se trouve en péril, exposé à l'injustice et à l'arbitraire selon Karim Meïssa Wade. pour Karim May Sawar, la décision de notre secteur général Maître Ablaïwa de soutenir la coalition Diomaye Président le frère Karim Maïsawat lance un appel vibrant à tous les comités électoraux de la coalition Karim 2024 sur l'ensemble du territoire national et la diaspora. À travailler étroitement avec les comités électoraux de la coalition Diomaye Président. Notre objectif commun est de sécuriser le vote de chaque Sénégalais et de mettre en échec le plan de fraude massive orchestré par le candidat Amadou Ba déterminé à voler l'élection au premier tour à tout prix. Cette action collective est essentielle pour assurer la transparence du scrutin et la fiabilité des résultats, garantissant ainsi que la volonté du peuple sénégalais sera respectée. Le président Karim Wade vous militant et responsable du PDS, allié de la coalition Karim 2024 et citoyen engagé à vous pour faire gagner le candidat Diomaye Faye dès premier tour. Pour Karim Meïssa Wade, nous devons tous l'égalité pour tous. Vive la démocratie, vive la justice, vive le Sénégal, vive l'Afrique. Avec Ousmane Sonko, Maître Abdoulaye Wade, Karim Meïssa Wade, Diomaye Faye passe au premier tour. Merci. Merci Mayoro Faye. Temps bi daf ñu tënk dañuy dem très rapidement ci ki ci topp. muy on a aussi rendre le hommage pour deux faits sa taxawaay tax ba dictature bi nga xam ne moo ci yoon jotu la am waaye surtout sa générosité bi nga tànnee Bassirou Diomaye Faye ndax li ñuy faral di gis ci leader politique mooy nga jël say Ousmane Sélé Kao defoo loolu kon cet acte de générosité ñu ngi koy saluer ak ni nga campagne vraiment def ci toute l'énergie et tout l'engagement qu'il faut ñu ngi la ci sant li nga xam ne nag moo am ba mooy ñu fexe ba le mars kenn du foxati sunu victoire sëñ neex neex lu ñu am engagement engagement dañu war a def ñaari mbir mooy teel a di wote ba ngoon waaye bu ñu gañee ñu toog autour des boo xam ne bii journaliste du wax ñu tëj ko wala tiktokeur di wax ñu tëj la parce que loolu mooy li nga xam ne mooy Sénégal bi nga xam ne moom la ñu bëgg a am bu nu falee sunu candidat kon nañu ci def li ñu ci war a def jigéen ñi encore une fois ak ndaw ñi xaalis baa ngi daw ci quartier yi ñu ngi koy gis mais encaissé madame, aux côtés des et président Ousmane Sonko, madame Aïda génie politique mooy wàññi durée campagne électorale def le tour du Sénégal exposer sa programme sa candidat bi di Bassirou Diomaye Diakhar Faye war nañoo moom Sénégal mu programme bi mooy programme bi ngeen bokk muy solution bi dina andi l'état vers les terroirs yokk na yaakaar waa Sénégal war na Sénégal ni ko yéen capable ngeen que le Sénégal puisse nourrir le Sénégal war ngeen Sénégal lan mooy signification de territorialisation des politiques publiques war ngeen Sénégal jaarama waaye bu kenn voté ji ak bracelet bu kenn voté ji ak cap bu kenn voté ji ak t dañu bëgg ngeen sécuriser vote bi bu ngeen voté jee ba pare bu leen fa jógee lenn moo leen dese di def ay dispositif pour sàcc waaye sàcc boobu mënul nekk premier tour dañ ko soxla parce ci agenda bi dañu tardé te comme tardé nañu